Bawol Production 20 ans d'existence 20 ans de carrière 20 ans de succès waaye nak mboki? ci bir 20 ans yooyu Assane Ndiaye def ci and ak xarita doomu ndaye Abdou Aziz Ale Ndiaye bii nak mo wara troisième édition sargal Aziz Ndiaye l'homme d'affaires borom jado Assane Ndiaye ni damay andi la crème de la lutte sénégalaise Xalé yi nga xamni ñu Dak dak ambiance ci lamb Deglul ma grand combat bi mbay guy gi doomi bawol la jël dal di koy boole ak xalé bi nga xamanteni ni moy di Moussa alpha numéro 2 2 dina fa jàkkaarloo ak caatu Bambilor drapeau Ngagne Diouf maire de Bambilor dafa leer numéro 2 daanaan bi champion bi moo war a jàkkaarloo ak doomu Jolof xale bi mën a bëre lool Modou Anta numéro 2 doomu Thiès war a jàkkaarloo ak Sayara Kewel numéro 2 dina fa jàkkaarloo ak booy Niang numéro 2 drapeau Naar Ñaan boroom Sandaga yeneen combat yi ca gannaaw nag moo gën a neex moo gën a doy waar ndax Assane ay ndaanaan rek la boole Assane Ndiaye ak waa Bawol production nag dese lu ñu dara amateur Assane ni sponsor yi may àndal ci bés bi bokk na ci boisson original boisson Cobra ETD DPR établissement Touba Darou Rahman huile Jador distingo Sbet mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu le 10 novembre ci arène national ñu ànd ci ak Bawol production n'est-ce pas du ngeen Assane Ndiaye kenn du leen wax ndaanaan TDR établissement Touba Darou Rahman mbokki kër gi ngeen di gis mu nekkoon ci état bu délabré nekkoon ci état bu doy waar mu amoon lu mu mel ba kenn ñemewu fa woon a dëkk yàlla dogal ñu jokkoo ak waa établissement Touba Darou Rahman ñu xaatim ay contrat war a jublu nag ci réhabilitation boobu kër xoolal ma ni kër gi meloon laataa mu yegg ci ci loxo établissement Touba Darou Rahman mbokk yi du gis ngeen établissement Touba Darou di yëngu ci wàllum tabax kër bi ñu leen joxee kër gi ni kër gi meloon ak bi ñu paree ci kër gi ni kër gi mujjee mel mu taaru loolu ba wute sax ak na mu meloon mbokk yi nii rek la ko waa ETDR di defee ci liggéey yépp bu fekkee danga am sa terrain bëgg am kër gu yees ETDR dina ko defar ba mu baax jox la sa ay caabi bu fekkee ni sa kër aussi moo soxla réhabilitation ETDR ñëw defaral la ko ba mu yemb lépp lu jëm ci wàllu kër muy wàllu carreau plomberie électricité lépp ñoo la koy defal lépp lu ngeen waxtaanee ba juboo ETDR dina la ko defal ñi ngi nekk fii ci Pikine ci technopole bi ci yoonu arène nationale bi villa numéro 406 wala ngeen woñu ci suñu numéro de téléphone muy le 77 575 50 25 wala 33 824 57 43 ku bëgg ci kër yu dernière génération yi kër yu bakkane yi kër yu noflaay yi tawal gaaw seeti waa ETDR établissement Touba Darou Rahman jërëjëf Seydina Aline ba tey ñu ngi sunu kër papa ñu ngi ci ngéntal Boy Niang li waaye nag ba ma père de Gaulle ne Boy Niang Cheikh Yérim du mbaan mu du balaa mu du bala ko de mën a mbaay jëre Cheikh naa Cheikh Sàbb bi xeeratu al xeeratu général de Gaulle père de Gaulle maa lay ziar bu baax waaw ah, lay ziar ah, di ziar sant yàlla di julli si bi di ziar kilifa diine yëpp di ziar famille Kandji waa Dar Rahman yëpp maa ngi leen ziar di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér di ñaanal boolem jullit yàlla na fi jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm ñaanal ñu feebar yàlla na yàlla may wér yàlla moom yàlla na leen yàlla yërëm taxal ne àjjana jégal ne seen bàkkaar si bakki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen di ñaan yàlla nañ yàlla musal si cat ak musiba ak balaa pexe noonu si barkante bi sallallahu alayhi wa tey dafa mel ni père bis bi bis bu mbégte la sa doom Boy Niang di tudd doomam nga ñu kontaan ci loolu macha allah di ñaan fi yàlla suñu borom doom bi dund lu bare bare bare ba am nday ak baay ba a ba yóbbu ay ay ay ay waajuram fi Boy Niang yóbbu ay waajuram. amiin dara yàlla moom dara taw ko waaw yàlla mi ñu ko dox ni ñu koy delloo cant gi ndax cant yàlla rek moo ñu war ñun. sant yàlla rek moo ñu war waaw di topp ay ndigalam di moyte ay tëram di baalu àq. di ziar bu baax a baax a baax waaw. ñu ngi sant yàlla di julli sant bi di xaar di xaar ministre sport di xaar état bi ñu ubbi ñu suñu làmb ji rek di gërëm ak lu làmb di ñaanal promoteur yëpp waaw di leen sant di leen gërëm waaw di wax ne yàlla na leen yàlla dolli wér waaw di ñaanal Fallou Ndiaye tamit. parce que Fallou Ndiaye sama Fallou Ndiaye la Fallou Ndiaye moom. Ndiaye production. waaw Ndiaye moom sama waay la ak. Assane 22 décembre ak Assane Ndiaye. Assane Ndiaye bi le 10. waaw ñooñu Assane Ndiaye ñoo ñëpp. samay nit la ñu. waaw moo limee damay juum waaye bu ma tee bu ma tee teel rek. Hmm. ñu si des ñëpp limaa leen la bu ma neexoon tudd Kandji production rek limaa leen ñëpp. waaw yóbbaale ñëpp. parce que Kandji moom nit yu ñëpp la. waaw Kandji Kandji ñëpp la ndaw lu guddi la. waaw ndaw lu guddi la. waaw ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. njëriñam tamit yaayam fekk ko. si barke yonent bi. gis naa ñoom Abdou Kandji. waaw ñoom Bamba Kandji ñoom Baye Laat. famille la. ñoom mère Ami ñoom ñëpp. famille la famille la famille la. famille la famille la famille la. parce dara doonu dara la ñu ànd. waaw ah, te li ma la wax léegi nitu démb sa nitu démb. Mhm. mooy lépp man sama nitu démb rek laa gëm. waaw di leen ñaanal ñoom ñëpp ñi ma yarandoo ak ñi ma fondoo ak ñëpp. maa ngi leen ñaanal yàlla guddal seen fan ñi si gën a àdduna yàlla yërëm leen. ànd bi rafet na amin waaw. bilan saison bi laa bëggoon nga ñëwal ma ci saison bi passé. waaw saison bi passé neex na trop ay déwénee tamit yàlla ko yàlla dàq waaw mais saison bi passé moom sant nañ ci yàlla baax a baax a baax a baax waaw bëri rek daan ak daanoo ànd. waaw waaye kenn rek moo du daan mooy suñu borom. waaw mooy mbër mu mag mi de. waaw moom rek moo du daan. waaw waaye keneen koo fi gis. muy bëree day daanu waaw ancien mbër boo déggee ancien mbar am na dégg na ancien président am na ancien policier waaye mosoo dégg ancien sëriñ waaw ndax yàlla leen aar waaw ku yàlla ku nga sàmm waaw ndax alxuraan la leen tënk ba dew dégg ancien sëriñ ancien ilimaan ancien sëriñ doo ko dégg mukk leneen loo fi am na ancien lépp day jeex waaw na jàmm ji ñëw rek waaw te euh, mobiliser xale yi tamit ñu wàññi violence bi waaw violence bi moom euh, kuy bu bëggee bu ñu bëggee làmb gën a jóg xale yi gën a am kontaan ci làmb làmb dem ba partout dans le monde nañu wàññi violence bi waaw ak wax yu waaw te ku si xool rek professionnels yi hmm, mosoo dégg Tyson wax wax wax wax wax wax kii lu ñaaw Yékini mosoo gis Bombardier wax Yékini lu ñaaw musoo gis Eumeu seen wax Bombardier lu ñaaw ah Balla Gaye gis nga ko ah waaw loolu fa rek la ñu dox hmm, ñoom tamit ñoom it war nañ jàng si yoon barki dem ba ma jóge Màkka lépp la Balla Gaye bàyyi ñëw fii xam nga loolu acte yooyu loolu mooy acte noble loolu mooy acte waaw dafa bëre moom boy ñaan tan ko ma jóge màkka mu ñëw xam lu ma wax ah keroog mo jóge màkka ma ko Modou Lo ñëw fi yooyu yu baax yooyu lañu ñu war a defante supporter tamit loolu lañu ñu war a defante yenn saa yi boy ñaan dem seeti supporters Balla gay ñu tase benn kër waxtaan desaan soppante ay xalaat ah supporter bu Lo wala ñëw seetaan supporter euh, Ama def noonu supporter bu euh, Fass Euh, euh, Eumeu Sène Eumeu Sène Balla Gaye yooyu dañ ko war a def ndax mu sport sport rek la waaw te discipline rek waaw te ñoo bu li la booy ñaari wax bu jeexee jeex na waaw ah keroog Balla Gaye wan na ne acte bu rafet ah ñëw ma jóge màkk bu ñëw ah loolu tax keroog bu mu bëree sama waa kër yëpp dañoo da da dañ ko la yàlla xam nga ndax acte bu rafet boobu muy def loolu nag mooy àdduna Hmm? te fii ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew mi mënuñu ko xaajaloon nañu defal te jàmm. di yéeneente jàmm ah. di def jàmm ndax sëriñ si ñuy sëriñ si euh, euh, kilifa yi jàmm rek la ñuy wut suñu am na ñoo xam ne duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg ndax ñaanal nit ñu jàmm ah di ñaan sax nattu nattu yi nit ñi sax yàlla dal seen kaw ah loolu nag bu ko boo ko amee si ay kilifa diine war ngaa xool rek di topp jàmm rek ah. di ñaan jàmm rek. ah yàlla nañu yàlla may jàmm ah mais saison bi passé moom macha allah macha allah macha allah saison boobu passé moom neex na trop waaw te saison bi jëm dafa gëm naa ne moo koy dàq. incha allah waaw gëm naa ne moo koy dàq. coowal bi jeex na coow li bari na mandat CNG bi jeex na mais ba léegi ministre bi waxagul waxaguñu daal lu leer daal moom instant yii daal danoo toog ci nen ñun waa làmb. waaw ñoom de pareeguñu mais yàlla moom pare naa waaw yàlla moom ki war a toog foofu. yàlla tudd na ko bu yàgg ñoom dag ñoo si des ñooy yor zahir bi mais baatin moom suñu borom def na ko bu yàgg waaw l'essentiel moom ku toog rek nañ jàppal suñu làmb ji waaw ku mën a toog rek jàppal suñu làmb ji waaw waaw moom état bi ku fi toog tamit état jàppale la waaw parce que état bi dafa war a suspendre jox suspendre euh, CNG yi CNG di mën a jàppale mbari équipe nationale yi ah di jàppale mbër mu gaañu tamit ñu xool ñu koy fajee yooyu yëpp keroog dégg naa maari wax ko si kéem bi waaw si ah, kéem bi yooyu yëpp ah day day day day baaxal day baaxal ay affaire parce que comme politique bi rek la ah lii rek moo si indi du xeex du xuloo ah indi sa xam-xam ke indi xam-xam ngeen boole xam-xam yi xam lu ma yàlla may ñu jàmm waaw loolu mooy affaire bi mais léegi àdduna dootu xeex dootu xuloo waaw toog waxtaan la jàppalante waaw loolu dong la ku nekk yéen sa morom jàmm loolu dong fi nekk waaw maa ngi ñaanal rek di la ñaanal ah, gis nañu ñu ñëwee Touba ni nga sonne si ñun bu baax ak ni ñu taxawoo ah di la ñaanal yàlla na yàlla yokku la ah li nga bëgg yaa ko xam yàlla na la ko yàlla defal ah yaag sa caméraman bi Eh? yàlla moom pare na. waaw waaye nee na ñaan leen ma ma may leen. waaw hmm? ah, nañ ñaan rek te ñaanal leen ah waaw ñaanal ki ñu fi tasel yàlla may ku gudd fan ak wér ba nga xam ne moo baayam ak képp ku fi teg tànkam si barke yont bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. waaw mën nga na ba ba jigéen wax le premier janvier nag. boo ñaar de bëri na Balla Gaye le janvier bëri naa Modou Lo le premier janvier.

ñu ngi ñaan yàlla parce que ñoom ñaar ñëpp suñu doom lañu waaw suñu doom lañu parce que kii ñu nag papa ma daa ànd waaw te sport sport sport la rek waaw nañ leen ñaanal jàmm ah may leen gudd fan ak wér ba ñu fekk ko jàmm ah ñun ñaan rek ku gën lu gën a jégg gën a yey ñu ñaan suñu yàlla mi nga xam ne mooy jox ndam yàlla may ñu ndam après ñu continuer waat continuer ensemble parce que. mu dax bëri booy ñaam foofu. te combat bu doon tey tey tey léegi mu daan. waaw xëy na moom mooy yàlla waaw nit de daan daan na hmm. daan na ku ko dàq bëre. nit daan na ku ko dàq bëre nit daan na ku dàq bëre waaw moom nag li mu yaakaar la mbëri yaakaar rek. dàq ta bëre boo ñaan. Hmm? ah nañu xool ba bis ba rek si kàttan su ma dañu daal li ñu am. nekkuñu fii di werante que kii di ñu daal mooy kii nga xam ne mooy joxe ndam dañ ko ñaan waaw waaye bëre moom <laughs> ah am na ñu mu taseel caari géej ay mbapat. moom booy ñaan waaw na leen laaj. comme comme ñaan naa sax am na ku ku ku si ku si bëre ba mu dam sax booy ñaan daan ko mu damm waaw def naa si camp bi fii. Ah, comme moom mu nee na Reug Reug lii ko indi Reug Reug sama écrit la bëggoon ñëw. Ah, <coughs> la bëggoon a ñëw ñëw na ba toog sama kër sama buntu kër. lu tax mu lu tax bàyyi woo ko mu ñëw. non non yàlla moo dogal lool rek yàlla. mais ñëwoon na ba toog sama buntu kër pour ñëw si écrit bi yàlla moo dogal. boobu fekk na bëreegul arène. déedéet ko mu bëreegul na mu ngi mbappatu ñu ndaw rek boobu joturam jógagul sax mais Reug Reug moom suñu doom la ay bàjjanam ay bàjjanam suñu nit lañu ay papaam yu ndaw suñu nit lañu démb tey soog a ñëw boobu Reug Reug juddoogul kon lu ñaaw xaju fi déedéet noonu du ma def loolu noonu yow moom ko xam ba mu jógee màkk ba léegi tim rasulaay waaw dootu moo wax wax bu xam ni daal si kàttanu yàlla ak yont bi nii dañ dañ ma si ngàmb waaw da xale yëpp kenn koo si gis day wut si lu mu ñaa lu lu mu waay waay waay juróom ah nañ leen ko ñaanal rek ñoom luñ tuddee la waaye seen waajur waaye moom lu gën a jege gën a yaari école di di booy ak pikin daal yàlla na leen yàlla may ndam ndam si kàttanu si morom. kon daal ñaar sa doom amul lenn loo koy lo ci rëg-rëg. non non si bëri rek. waaw ah, déedéet. dañ ne mbapat def dama ne bëri mbapat ba dama ne dama ne déggoo li wax mbapat dem wax mbapat préparation ak mbapat mbapat bëri di boy boy ñaar dana bëri mbapat di dem rek du xaar kenn daan na bëri ñaari mbapat ñun daan nañ bëri juróom mbapat par guddi ñun juróom ba bañ ne allahu akbar loolu boo ko formal mu wax la ko boo ko laajee kenn ñu ko jàmm wax la ko dañ daan ba fajar ba ñu allahu akbar xale yu guñ ko ah te da nga naa ñëw bërkëre Moussa gay wax na ko da nga naa ñëw tuus sëriñ la xale di sànni jigéen ñi sànni si ngay tànn ngemb ngemb ah léegi rek da nga xam ne diw a ñëw ci mbapat mi diw day ñëw diw day ñëw diw day ñëw nga préparé loolu loolu loolu loolu kii kii te man maa ngi samp yooyu mel samp yooyu gën a garaaw yooyu ah maa ngi ordinateur maa ngi fils de Badlen maa ngi Zambala ah ah Kalmundur ah waa Salla waa ngi ay xale yoo xam ne <laughs> loolu bala nga xam man man ñu ma ñu mën rek rek ñëw ñu bokk entraînement ah waaw ñu mën naa ñëw mu ñëw toog ànd ak waa Thiaré ñu bokk entraînement. loolu du yomb de. non ah bu buñ ko nangoo buñ ko nangoo kay naa leen. moom instant nag ma nga jëm nag ci MMA ba war a dem bëre nag te te booy ñaar sax dégg naa mu ne su paree ñu dem bëre ji MMA. waaw waaw rek loolu moom xam nga Sénégal la génnal nag Sénégal la génnal. dañ koy ñaan dañ ko si ñaanal yàlla may ko si ndam waaw foofu moom Sénégal la génnal. nitu Sénégal la suñu doom la waaw dañ koy ñaanal yàlla may ko ndam lu set wecc waaw parce que loolu moom suñu la moom waaw Reug bu nekkee champion du monde euh, si MMA kooku moom suñu kii la Bombardier bu mu ko nekkee suñu fierté la caa caatu yoof bu ko nekkee suñu fierté beneen xale bu kii même liiru jan dañ koy ñaanal yàlla may ko waaw waaw parce que ay doomu Sénégal lañu waaw Sénégal moom lu mu jógee waaw man équipe man équipe équipe laa équipe bu benn Sénégal bu football sax équipe boobu laay supporté waaw. parce que sénégalais laa waaw. benn waaw. dëgg-dëgg ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci kàttanu suñu borom. L'établissement Touba Darou Rahman en partenariat avec la société chinoise Shanghai Binga Industrial Co point LTD gannaaw liggéey bu ràññeeku bi ñu amal fii ci Sénégal ba ñëpp ràññee leen ci établissement Touba Darou dem nañu ba Chine signé fa benn contrat ak benn société bu mag bu nekk ci dëkk boobu société bi nag mooy Shanghai Binga Industriel Co point LTD ngir mu représenté leen fii ci Sénégal yore exclusivité wu marque bi kon nag gars yi yéen ñi amoon njaaxle lool ci yenn matériels yi contacté leen gaaw ETDR ndax mooy jaay yii le matériel am nañu ay pel mécanique ku ne xam na ni mel ñu doon wër chargeur boo ñëwee ci et di nga ko fa fekk tractopelle de dernière génération am nañu ko ay poquelin excavatrice yi nga xamante ne ni moom ngeen doon gis yàgg ko rêvé ETDR boo ñëwee ci ETDR ñu teg ko ci sa loxo ba ci bulldozer D8R yi nga ne nii mooy yu mag a mag yi am nañu ko contacte leen gaaw ETDR mi nga xamante ne nii moom mooy liggéey ak société chinoise bu mag bii foo mën a nekk ci réew mi ñu livré lu ko te doo ci fay dara ndax loolu lépp day bokk ci prix de vente bi bu la neexee ñu jaay la machine bu bees tàkk wala sax ñu jaay la deuxième mai ETDR établissement Touba Darou Rahman mooy dox ci sa diggante yow ak société bi nga xamante ne nii moom mooy Shanghai Binga Industriel Co Ltd ngir nga jot ci sa machine bi ci établissement Touba Darou Rahman encore plus proche de vous pour plus d'informations contactez-nous au 77 575 50 25 ou le 33 824 57 43 ETDR établissement Touba Darou Rahman Yen, la